justement bon loolu est que est-ce que du nekkul euh, benn limite faille su fekkee na yéen da ngeen bëgg a dérouler seen euh, seen i mbir euh, bëgg a financer bëgg jàppale jigéen ñi boo bëgg jàppale ñi ngeen bëgg a jàppale ñëpp ngeen reposer wu si ay partenaires. yoo xamante ni peut-être ci leneen la ñu nekk wala am nañ ay relation ak ay hommes politiques est-ce que jàppoo ne euh, loolu mën na biaiser un peu euh, les relation de telle sorte que financement bi wala jigéen ñi ni ñuy jëfandikoo seen fonds yi c'est ce sera orienté. d'accord léegi euh, mooy li problème bi mooy pour ma jël détail ci explication yi. mooy mm-hmm. non partenaires. on na choisit pas nos partenaire par camp politique on na choisit pas nos partenaires par hasard c'est des structures qui sont là qui avec ou sans nous ñoom mhm. dañuy liggéey ils sont dans les microfinances ils sont dans les orientations dans la formation et cetera pour les femmes et les jeunes mhm. ñooñu la ñuy dem seeti en tant que partenaire ñu ñëw jàppale le programme le programme en tant que tel amul coloration politique moo tax on a mis le mouvement et un programme. le programme amul coloration politique on couvre tout le monde. képp ku nekk ci yow mi président bi yaa ngi ne Amadou Ba nga jàppale. waaw mais ça na bokkul nos activités. Hmm. on n'a pas le droit de les orienter ci ki nga xam ne moom mooy jàppale Amadou Ba. tu penses que mën nañ ko dissocier. non mën nañ ko dissocier pourquoi ah parce que ce sera difficile parce que un programme de développement communautaire. moom kooku politique c'est un programme de développement communautaire okay. mais le mouvement bi nga xam ne moom lañ mettre en place c'est vrai que moom moo porté programme bi mais ça ne veut pas dire que programme bi dafay am coloration politique nous on soutient Amadou Ba mm-hmm. parce que dañu jàpp ni xëy na bis bu nekkee président de la république suñu développement de euh, programme de développement communautaire dina gën a yaatu mm-hmm. dina gën a facile parce qu'il a proposé Euh, des financements des crédit di entre di jàppale les petites et moyennes entreprises di jàppale les finances les microfinances les femmes di leen faciliter crédit donc bu ñu amee un candidat bu ñu proposer programme boobu bu nekk un économiste pur et dur nag xam fi muy teg tànkam comprendre li ñuy wax état mm-hmm. parce que état dafa naqaree comprendre Amadou Ba 88 ba léegi mu nekk fonction publique di ci liggéey di servir le Sénégal ñun jàpp nañ ni il est le candidat bi nga xam ne yaakaar nañ bis bu nekkee président de la République dina jàppale suñu programme de développement communautaire mais xam nga mais xam nga bon